waaw salaamaaleykum sama gars yi salaamaaleykum sama mbokk internet yi tey na gars yi dañ fii tey Pape Demba xew la ngéntam tey ñu ñëw fii fekk fi benn champion boo xam ne bi blessé bëri fan yi passé mook caatu yarax ñu laaj ko moom lan mooy teewaayam fii si diggante mook Pape Demba quoi. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokk internet yi di sant yàlla bu baax di jug suñu tibi di sant suñu ñaari waajur waaw Papa Demba dafa nekk koo xamante ni maanaam suñu nit ga maanaam nit ñi nga ñuy wax. oui vraiment nit ku baax ga te nit ku gore ga aussi te gis na ñu muy andé mbeur yi surtout mbeur yi Keur Massar yi ak Malika vraiment ñu ñëpp ga yam ak ñu doon benn xam nga man ak mom sekk nañ ay nga xamanteni man ak mom kassaka yaangi dégg euh joté lo xamanteni joté wul sax ak ramb dara xam nga kon koku manam suñu nit ga tay bu dañ fay waga tew lolu par force ga vraiment nit ku baax ga dal waaw ñu ngi koy bëggee baax di ko ñaan ak yàgg di ñaan ak yàgg bébé bi gudd xam nga ak soxna ñëpp di ñaan di ko ñaan ak daal mu dem ba xam nga lépp lu mu bëgg si àddinaam rek mu am ko parce que macha allah nit ku baax la waaw. mais dégg ngeen bi fan yaa ngi bëri benn combat bu bëri coow yaa caatu yaraax ñu gis premier site bi Bulldozer moo daan ngeen continué waat mu daan léegi fan nga mujjee euh, si euh, site boobu bi ba léeg waaw loolu moom dafa gër naa ñu parce que tey jii ramb demee noonu parce gis nañ ci ay combat demee noonu ah. mën na aussi que ma doy combat tey ku mel ni Góor Sok ak Tyson de nii nga demee woon euh, Tyson 2 da koo daan après Góor Sok daan ko après ñu dem def gëkkul Tyson ñu jox Tyson 2 victoire ramb nag noonu si nga bokk tey jii mënoon nañoo tey jii mënoon nañ koo daan directement ñu jox ñu victoire foofu noonu ñu ñibbi si cat topp ñu wala gën a gën a xew si kon ñun kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax def nañ gi ñor may def nañ ko kuul te am nañ ci yaakaar à 100 pour cent que ne bu génnee dañ ñu jox victoire loolu moom gar nañu parce que rôle euh, moom site bi ba nga ñu guéné sat bi ñëpp nangu nañ né man mako ko daan première action bi koy bop bi mo jitu yow ngay dog exi mais tam il est temps est-ce que Bill il est temps boy yi ngay may sens est-ce que jotul nga bay fi boy jëm jëm ponkal yi nga am ne ñoo nekk ci kaw nga mëna bëre yeen grand combat yu am doolé wa chat yu wax may mako sens sama monom nga rambu bogé ñu man ak mom xam nga té yaakaar naa ne rambu nonu nga ay morom buñ buñ buñ nekkee morom ci rambu war a daje yaa ngi dégg dañoo war a daje mu surtout mu nekk combat xamante ne amateur yi dañ koo bëggoon xam nga loolu moo ñu jël ko sama morom nga mayu ma ko sens moom mayu ma sens dañoo toog loolu si gàmb xam nga donte man maa ko ëpp sax benn maa ko ëppee benn combat ëpp nga koy victoire mais loolu yëpp du si dara en tout cas gàmb boogee nañu man ak moom jël na avance bi bëri mais sant bi nag jot xam nga ñu di yëg si kaw jot nañu dox ay pas parce que tey jii mënu ma nekk si onze combats dix victoire benn défaite xam nga bëgg bëgg a nekk si booy ba tey loolu munu sax nek wax deug yàlla instant bi kay dañuy taxaw xaar su ma mënta am ko xamanteni nga am xam na ko à 100 non ma tok xaar sax war ma bàyyi moom ko gënal wax deug yaaga instant bi boy mom doona seuk wax deug yaaga mais yow ci ponkal yi nga pa yi nga wax ñu nek ci kaw yow peut-être ñaari mbeur wala ñetti mbeur yo xamna tay bu la joxon di nga bëre ak ñoom tey nga tuddu len ma xam ñen mbeur la. non pa pa sax du ñu ay pas de non du ñu ay pas ñoo xamante ni man mënu ma leen bañ ci gambu ñom tam kenn mënu ma see bañ wala ko gaga jël sama avance da ngaa tapé rek ku ci bañu sama avance da ngaa tapé tapé moo ko rek mais yàlla xam na ne jamono ji mën ak mët ja da am dakh ko yaa ngi dégg mën ak ñàkk nga gàmbu dakh ko mën ak mam baga bu way nga gàmbu dakh ko mën ak kolifay deux gàmbu dakh ko gàmbu mo ne ko rom des fois nga wax ci tour tour adversaire mu yaakar ne mom mo ragaw fekk yow li nga def mom sax xaju xaajal defu ko yaa ñaanu ñoo ñooñu nekkul dama ngeen di ñaan sans sumay ñaan sans Zargo ga ñaan sans wala Modou Anta su may ñaan ooy jën keeke su may ñaan chance ñoo di gaay ñaan chance parce que wóor na ma ne ñoom ñoo ma gaaw si gàmb mais ñi ma la gëmal nii ñëpp yaa ngi bu ñu bëree man dañoo war a bëree ak man instant bi parce que tey ji ñoom ñoo ma wax noonu ñëpp ku si bëree wut man ren déwén dig si bëree man mu tëgg parce que am na ay booy ko fi waxoon daaw neew naa Buldozer ku ko bañ ren déwén di ko bëgg mu tëgg waaw noo ko demee kon daal ñu xaar saison mi bu soobee yàlla loolu na promoteur mais ñun moom pare nañ pour bëgg ak ñëpp am na promoteur sax yu ñu contacté ba ñu waxaat ak ñoom ba jiboo di xaar adversaire de bi kon yaakaar naa ne amuñu problème boobu noonu ku si nanguwul bëri nag am na gars yi ñëw ñu mayeen da xaalis bëree suñu biir te ñu xam ne buñ ma xoogee xoolee bëtu booy donte xagaraa mais dama xuus ba yegg si yaa ngi dégg loolu yàlla moo ko def dama xuus ba yegg si dama daan samay mbërëm yëpp mosuma am combat ñu jox ma favori combat yi moom yëpp mbër bee nga jox favori te damay ñëw bëree lu weer def fukk ak fayda génn si ak jàmm kon gars dafa jot pour tey ñu bëree affaire du mayante sens nga man ak ñi ma nga wax nii du mayante sens amu si ramb moo ñu boogee te dañoo war a bëree te ku si bëree man ren déwén di nga bëree bëree man mu tëgg barki alxuraan waaw. mais dëgg bi bi CNG jël si Luis Ndiago bi gaaj trois ans si làmb ji est-ce que dina dina jëmal làmb kanam. waaw loolu moom wax dëgg yàgga tey ji dinaa wax si ñaari affaire quoi côté boobu gis Ndiago champion nga di ko nuyu de passage xam nga parce que tey jii làmb boo nekkee xale làmb teg ko si yoon euh, CNG bi gi ngay tere bu ko def man maa ngi nii CNG bu ñëwee si man ne ma 10 biteel nga dugal si géew bi mais 10 biteel kaa si géew bi bu ñu ma dee tant tëggkat ngay indi tant tëggkat ñoo dugal tant de personnes ngay dugal tant de personnes ñoo dugal am na booy tëb mu ne dama ngeen di yëgagaat si kaw parce que bëgguma def loo xamante ni day day teggi maanaam day teggi yoon bi CNG teg. loolu man du ma ko def kon booy yi dañoo war xaw si loolu noonu booy yi mën nañoo xam lu nekk si làmb bu ñu goo mooy tuuti bari bu ñu topp booy gis nga mbër da ngeen fu am fayda donte nit ki loo nekk nu mu nekk nekk nekk nekk nekk sama xarit ah, kenn du ma yàqal sama bés. tey jii gis nga ko li mu def na moom bu sañoon du ko def mais booy yi rek xam nga engouement bi ñu ko jëlee ñëw si làmb ji xam nga defi kenn xamul booy yi nekk si kaw yàq ay 16 donte sax supporter yi yàq ay yow boo sañoon kenn du yàq ay mais xam nga du ci mën dara mais tamit di wax tamit ci côté CNG bi boy bi xaga ga yaakaar naa ne trois ans non bëri na si ku mel mbër mu mel nii gis jaago waa public bu mu am te day te bokk na si mbër yi nga xamante boy yi nga xam dañuy dundal gàmb ndax naan nga c'est que dafa jum dugg si foo xam dugg foo xamante ne dugg catégorie boo xamante ni waru fa dugg waaw bu desoon see moromam rek macha allah kon day tegu si yoonam te kenn ko kii di wax di lancer mbër mbër yi mbër yi ndaw gis nga Bahul, baxul yàkkamti baxul yàkkamti bu gis nga mbeur mbeur bu ci yàkkamti yag yag na ngay taxawat yag yag na nga war nga nek yàkkamti di jël ay mak mënool daan ay mak daan ay mak ba gaw say morom won mënul nek gambu dafa am ni ci dundé gis nga man sama yoon yag gi tax tay yag dafa ma gis gambu moy tay ji nangu mo won jël ay mak ay gay deuk ay xawma ki nu mu tuddu mbay juufal lu nek proposé nañ ko fi yaa ngi dégg mais dama bañ dama ne leen maa man bëréew mag benn mag nañ ma jox sama morom yi ma bëreeg ñoom daan ngeen wane sama bopp parce que mag yi boo ngeen daanee mu nga leen daan mais taxul nga kaw sa benn morom yaa ngi dégg mais kon bu na gaa booy daal nañ xam fi ñuy teg seen tànk xam adversaire yi ñuy jël bu ñu jox ko cër teg ko si yoon CNG bi règlement yi mu fi teg yaa ngi dégg nañ ko nañ ko assumer te CNG bi ñoom ren war nañ mbëri si professionnalisme ñoom tamit war nañoo gën a yokk war nañoo gën a yokk évoluer parce que tey ji lamb tey ji soxla na lamb tey ji jot na pour moom am nga xamante ne boo koy fay nga fay ko sur pagas yaa ngi dégg tey waaw moom VAR yaa ngi dégg mais même booy fay xaalis pour pour def recours vingt cinq mille nga fay ko saag sax moo ñu gënal parce que imagine sama combat yi passé ak yeneen combat yu bëri dégg naa semaine bi huit huit huit huit kii waaw huit recours yaa ngi dégg loolu kon jot na tey CNG bi xoolaat boppam bu baax a baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax di jóge seen bi di nuy suma gaay yëpp di nuyu képp kuy bëggee Bulldozer di nuyu suma yaay bu baax a baax suma papa waa Marika suma koñ maire yi paa yi xam nga oma seen fay gis naa taxawaay bi ñu may taxaw suma mafia suma mafia xool sedd suma mafia waa Café gi Assane Mbaye di ngeen bëggee bu baax baax di bëggee waa Yëmbal Tëri Mare di bëggee waa Marika yëpp di nuyu bu baax sama papa Ndiogu saw di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ni ngi di nuyu suma grand Doudou Ndiaye xam nga dun gis naa taxaw bi ñoom Mbaye Diago Grand Tara Diop gars yëpp gis naa ni ñu may taxawoo gis naa conseil di nuyu bu baax a baax baax mbay Ginaar di nuy nag suma gannaaw bi ñu naan xaar yi yi borom festival euh, fast food festival Kër Massar xaar yi suma gannaaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko bégee moom daf may jàppale si lu bari bari bari bari bari xam nga maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu nag àdduna di nuyu waa parcelle bi yëpp aw ma seen fay gis naa ni ñu ma taxaw si combat bi sama grand am di suma xarit am ñoom petit xam nga buuba waa kefe gi ñëpp suma ma rimee rek dinaa juum mais nuyu naa ñëpp bëgg naa ñëpp macha ok merci waay Bill